bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man wala jaalana allahu minhum sëriñ bi ñu ngi leen di sëriñ bi dafa sëriñ bi dafa wax ni ñu sàkkul ko ndigal ci yow ci lii muy bëgg a jëf nee na bu ci amee ndigal mën koo tàmbali nee na am nga ci ndigal bu baax alhamdulilah alhamdulilah kàddu nee na sarak nee na kàddu gu gàtt incha allah. ndax fañu ko taataane la ak fi mu jëm si. nee li waral muy gàtt mooy kàddu gi fa mu tukkee ak fii mu jëm. moo waral mënula gudd. ci tële ak lottaange ci ni ñu ko taataane woon ci. mbokkam soppeem xaritam léppam di alxalifa sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour mu ni yéeg ak lot ci man ko toxal na mu waree jële ko ci sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour indi ko ci yow ñu laltaaye ko ubbee ko turu yàlla subhaanahu wa sant yàlla bu baax a baax nee na xanaa ñu laytaaye ko muy wax ji mooy ubbee wax ji turu yàlla subhanahu wa taala teg ci sant ko di def salaatu ak taslim ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli di sëlmal ci sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala ci darajay ndawam soppeem boobu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla fayal suñu di ñaan yàlla subhaanahu taala ci dara sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soppeem boobu yàlla ñu yàlla wuutu fayal ñu suñu maam ju baax ji maam Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu an sëriñ bi sa mbokk sa soppe ngi lay di la ziyaara di la ndokkeel di la masawu coono. mbokk sa soppe. mi ngi lay di Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaara amoon loolu yéene ak mbégte ñëw teewal boppam ci jëmmi boppam waaye ngant téye ko nee na amoon yéene lii ñu ko defal wutu ko ci mu defal ko boppam waaye yàlla dogal ngant gaar ko ñëw ci sa wet toog bokk ak yow lépp ak fépp nee na ñëw ci sa yow ci sa wet toog bokk ak yow fépp ak lépp xew-xew la boo xamante ni mbindaafoon yëpp a ko moom. ndax lii xew-xew la boo xam ni ku yàlla bind am nga ca cër. rawatina jullit ñi. rawatina nag jullit ñi. waaye ci biir jullit ñi nag rawatina moom ci boppam ak njaboot gi yëpp. biir jullit ñi nag rawatina moom ci boppam ak njaboot gi yëpp. ndax lu leen yàlla boole la. ndax day loo xam ni yàlla leen ko boole. yéen ñaar. fa tabaarakallaahu. mu ni fa tabaarakallaahu. kàddoom yooyu nag ñu wuutu ci mbooleem sa xadra maam Cheikhul Hadji Malick. nee na kàddoom yooyu nag mu koy wuutul di ko ko jotalal ma nga ca wuutu moom it mbooleem xadra sa maam Maulana Cheikhul Hadji Malick radiyallahu anhu. waaye gunge ko ñaan gàttandoo ko gunge ko ñaan gàttandoo ko ñaan. mu jëm ci sa taxawaay ak ngërëm bu jëm ci sa taxawaay bu rafet ci diggante bi. ci lépp loo xamante ni rek na diine ji. ci taxawaay boo xamante ni bii ñëpp xam nañu lépp lu itteel diine ji rek sa sa loxo nga ca biir. itteel réew mi. itteel réew mi. askan wi. itteel askan wi. ak jaami yàlla yi. ak jaami yàlla yi. ci lu leen dimbali. ci lépp lu leen di dimbali. lu leen di taxawu. ci lu leen di taxawu. luy rafetal. ci luy rafetal. luy boole. luy boole. luy yéwénal. yooyu la yëpp yaa ngi ci suba ak ngoon. nee na yooyu la yëpp gis nañu ni yaa ngi ci suba yaa ngi ci ngoon. moom daal mi la ñaanal. nee na moom daal li mu ñu yónni ñaan la ñu ànd ak ñoom moom it ñu di di la ñaanal nag wëlbatiku di la ñaanal ñun ñëpp. gannaaw gudd fan teg ci wér teg ci kaaraange gu jógee ci suñu boroom yàlla na la yàlla may ngërëmal maam Cheikhul Xadim. yàlla na la yàlla jox ngërëmal maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu. te ngërëm moom mooy ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lu mu gërëm yàlla gërëm na ko. te moom moom ngërëmul maam Cheikhul Xadim mooy ngërëmal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gërëm yàlla gërëm loola. sëñ Babacar nee na mi ngi feddliwaat mbokk gi ak kóllëre yi ak cofeel yi ak yëg-yëg yi. nee na tànk yi tànk yi feddali kóllëre gi ak bokk gi ak teraanga ji ak yëg-yëg yi yëpp ñu ngi koy feddali ci tànk yi ba ci yoonu mujj wii rek nga yebaloon sëriñ Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir mu njaboot gu tedd gi yi nga xamante ni indi woon ko nga teg ko ci loxo mu indi def ko ci liggéeyu jumaa yoonu mujj yi rek nga xam ni barki démb sa jawrin di suñu bàyyi Seyd Mouhamadul euh, Bachir bu maam Abdul Qadir ñëw ànd ak délégation bu rëy ba ñu àndal indi teraanga ju rëy ja nga xamante ni bii moom nga leen jox ñu yëkkati ko teg ko ci loxol góor ngi ci kilifa ga ngir mu jëm ci liggéeyu jumaa jooje nga xam ni moom la moom lay taxawul foofa. ak leneen lu xew rek ak lépp lu xew. nag gis nañ ñi sa loxo noonu la ci demee. muy na muy liggéey boo xam ni nag. ñu mel ne man ñu bari dinañ ci. dinañ ci rectifié nee na muy liggéey ak jëfin woo xamante ni bii ñu baree baree baree baree bari dinañ ci dinañ dinañ ci seetaat seen bopp. dina dina tamit am soññ ci ñun. dina nekk it ab soññ ci ñi ci ñun. ci takku taxawu. ci takku taxawu nag. ci diine ji. ci bokk gi. ci réew mi. ci réew mi. ak lépp loo xamante ni rek dinañ ci. njariñ dina ak ëllëg ak lépp loo xamante ni bi mën naa jur njariñ tey ak ëllëg nee na mi ngi yàlla nee na mi ngi ci teg nag di la ñaanal yàlla bu baax a baax mashruwaat yi nga sumb ak projet yi nga xam ni yëpp yaa ngi ko sémb muy ay sémb yu fi ne yàlla na lépp sotteeg jàmm yàlla na nga sottal yëpp ak jàmm alaa wajhi alxayaati wa sixati wa salaamati wa alaafiyati jàmm ak fekke ak fekke tal ak tal ak sago ak sago nag ak kaaraange ak kaaraange xam naa ni lott nañu ci la ñu taataanoon ci moom mënuñu ko jotal lépp nee na kàddu ya ñu jële woon ci moom ci ni mu ko waxe woon ci njaalbeen néew na doole lott na ci man koo jotal na nga xamante ni bi noonu la ko war a jotale waaw ñu ak njabootam sa njaboot nee na looloo taxoon nag mu boole ñu ak njaboot ñii mu àndal di sa njaboot nag di sëriñ Mouhamadul Habib di doomam. di sëriñ si di doomam. di sa doom di sa doom. ak sëriñ Sidi Ahmed si di doomam di sa ak sëriñ si bu sëriñ Abdoul Aziz si al Amin di doomam di sa doom. ak sëriñ Pape Youssoufa Diop mii nga xam mu ne wala ak sëriñ Pape Youssoufa Diop mii nga xam ni. bàjjan Asietu si bu sa maam Cheikh Al Hadj Malick. nee na bàjjan Asietu si bu Mawlana Cheikh Al Hadj Malick. mi maam Youssoupha Diop dëkkoo woon ca Fass. mi maam Youssoupha Diop dëkkoo woon ca Fass Jaksaaw. ñoo meññ ñoo meññ way juram. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. ànd Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. ànd tamit ay doomam di say doom. waaye ànd ay doomam di sa doom ñu bokk ci délégation bi. di njabootam di sa njaboot. di njabootamit di sa njaboot. di alxaaji Abdoul Aziz. di alxaaji Abdoul Aziz Ndiaye. bu alxaaji Ale Ndiaye. bu alxaaji Ale Ndiaye. ànd ak rakkam alxaaji Baye Ndiaye. mu ànd ak rakkam alxaaji Baye Ndiaye. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ñi bëggoon a ñëw ñëpp bari nañu. nee na ñi bëggoon a ñëw ñëpp bari nañu. waaye ñun ñoo ñëwoon di wuutoon di leen. waaye ñun ñii ñoo fi jiitoon di. wuutoon di leen. ne bu ñu agsee tamit ci alxaaji sëwru kebe nii fii ci dëkk bi ñu àgg ñu jaar ci alxaaj sëwru kebe mi fi mi nga xamante ni bi moo nekkal waa xadra maam Cheikh alxaaji Malick fii ci dëkk bi waaye di sa njabootu bopp di sa njabootu bopp it mi nga xam ni mooy imaamu Ngasama Daaru Rahman alxaaji Omar Kebe mu ànd ak it alxaaji Omar Kebe doomam. ñu ànd ak tamit suñu rakk Babacar Diagne. ñu ne ñu ngi ànd ak it suñu rakk Babacar Diagne. ñëw nuy la. ñëw nuy si la. ziyaar si la. ziyaare si la. ndokkeel si la. ndokkeel si la. masawu la. masawu la. yeesal cant. yeesal cant. ak ngërëm. yeesal ngërëm. lépp bàyyi ko ci. ci ci kaddu sa mbokk lépp bàgg bàyyi ko ci kaddu sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour. ñu ngi jégalu kaddu yi Serigne bi ñu ngi koy jégalu ñu ngi jégalu guddaay wi. ñu ngi jégalu bu baax. ñu ngi jégalu bu baax ak jataay beeg yépp ñu ngi koy jégalu. papa Abdoul Aziz am na teraanga yu mu indaale. nee na papa Abdoul Aziz mii Abdoul Aziz Ndiaye mii am na teraanga yu mu indaale. waaw ci ay gàtt. yu jëm ci gàtt. fukki gàtt la. fu nee na fukki eh, nag la fukki nag la. ak fukki tonu ceeb. ak ak dëwlin. ak dëwlin. ak ya ca ànd yëpp. ya ca fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. na jot nee bii rek doyoon na ci tey. loolu bu baax noonu. jotaay bii doy nañu sëkk doy nañu sëkk tegal. Mm-hmm. jërëjëf ñu lay jotal tamit nuyoo sa rak sa soppe Cheikh Al Hadj Malick Maodo. waaw ñëpp ñu lay nuyu. Ah, jërëjëf jërëjëfati. ah loolu day fi suñu xol sori na lool. waaw sëñ bi dafa wax ne jërëjëf rek xolam sori na lool. ci ci kàddu mu ne ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Sidi Ahmed yëkkati na ko. sori na ci mu ne sori na ci moom lool. mu ne dégg na ko itam benn par benn. mu ne xolam sedd na ci guy mu ne xelam dal na ci rëteex. mu ne yaakaaram it dolleeku na ci. dolleeku na ci. mu ne suñu soññ suñu bopp yi dolleeku na ci bu baax a baax. mu ne mi ngi sant di gërëm bu baax. jotaay ci ndaw yi ndaw yu eh, eh, mu ne ci jataay bii nga xam ne sëriñ Aba Aboubacar sëriñ Mbay yebal di jëmmam. gis bu baax. mu ne loolu gis na ko bu baax a baax. yëg nañ ko bu mu ne yëg na ko it bu baax a baax. Eh, mën mu ne mënta ci jëf ju ji jëf ju baax ji mën noo xam mën na mu amul mu mën mën nu ko noo xam nu koy nu koy tënkee wala nu koy waxee ci xeeti cant di cant yu rëy yu sóot ci ñun yu xam ne wóor nañ ne am nañ dolliku nañ ci mm-hmm. li ñuy jëriñ teegal rek xam nañ ne jotaay bii dolliku nañ ci ndollan lu rëy ci ñun alhamdulilah ko mm-hmm. xam ne dañ leen def mhm. waaw loolu noonu a. ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah. mu ne xolam sedd na guy waaye xel mi dal na bu baax a baax. mu ne yaakaar mi dolleeku na bu baax a baax a baax macha allah. kaddu yi fa tabaarakallaahu rëy na lool mu ne kaddu sell na lool mu ne neex na lool. mu ne mën na sëkk fa tabaarakallah nee na mi ngi sant bu baax a baax ni mu demee ci bu fekkoon ne moom dong moo jëmmi sëriñ Sidi Ahmed mii ni mu demee ci sëriñ bi bu moom fekkoon jëmmam ji képp moo ñëw képp moom doy na sëkk waaw waaye taxawaayam dafa sori ci moom lool mu ne rawatina bi àndee ay bokkam yu baax yi mu ne jóge fa ñu bàyyi ko ji sëñ Aboubacar ba ñëw ba ci jataay bii mu ne loolu réy na ci moom lool mu ne sedd na xolam jërë ngeen jëf mu ne xamul lu mu a wax rek ndax li ci waaw mu ne léppam cant la alhamdulilah jërëjëf. ñu ngi seedeel sëriñ bi tamit suñu mbégte. ngi seedeel sëriñ bi nag mbégteem. ak suñuy cant. ak ci suñu rakk ji nee ci seen rakk ji toog di sëriñ Chouaïbou sama ak mbooleem njaboot gi nekk. di ko dollee sàkkul ñaan. di ko dollee sàkkul ñaan. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax a baax. ñun ci biir ñaan googu. ñun nag ñu ngi ci biir ñaan googu yi. waaw fa ngi leen ko gën a dénk bi ne ko mi ngi leen koy gën a dénk bu baax a baax. jërëjëf Mbacke tabaarakallah teewlu. waaw ah, waaw seeral gën nu ko seeral bu baax. Ah, gën nu ko santal bu baax. jërëjëf incha allah jërëjëf incha allah. xam ne wala li nu séq. ñoo mhm. ngi seeral suñu borom nag. Mhm. daan ko ko sàmmal. alhamdulilah alhamdulilah sàmmal ko xadara ba yëpp. xadara ba yëpp li fekk noo ngi noy incha allah. càmbute googu yi dañ ko bu ñuy dem dañ ko yóbbaale. alhamdulilah. jërëjëf ñun ñii ñun ñii toog ci jotaay dem yenn saa yi ñu feeñalal sa cofeel gu mu am ci yow dina ci tudd ñaari yëf ñaar rek bu jëkk bi mooy woyof gi mu yëg ci yow ci boo toogee ci sa biir njaboot njaboot lañu nee na Aziz ak ak Baye mii rakkam njaboot lañu ay ndaw lañu te ay ndaw la ñu it nag. waaye ndaw yu waaye ndaw loo xamante ni bii ñu tënku ci kilifteef lañ topp ci seen i kilifa. yuy xeeñtu jub ak jubal. tey nag ay ndaw yuy xeeñtu jub la ak jubal. dara itteelu leen lu dul rek jëf lu baax. dara leen lu dul jëf lu baax. dellawaat ko ci jaamu dellawaat ko ci jaamu yàlla yi. ñu kon sëriñ baa ngi la koy sàkkul ñaante di la ko dénk. loolee mhm. démb rek. waaw waaw moo tax sëriñ bi tamit xam loolee nga wax nii ci moom. moo waral mu jox ko sijaada ak kaamil alxuraan. ak kurus ah, alhamdulilah bokk la ca gënoon a am solo lañ ko waxee dañ ko taxawaay ba nga ko waxee. doon na sëkk ci doon na sëkk loolu lay moom ba mu ñëwee rek loolu la ko wax ne ko la ci yokk yëpp taxawaay ba nga xam ne def nga ko foofu ci Tiwaawoon mu ne loolu doon na sëkk waaw lépp lu mu ci yokk rek ay ndolleen la waaw moom ci Abdou Aziz Ndiaye waaw jërëjëf macha allah <laughs>